sayidina muhammadin il makin wa alihi wa sahbi zaw ridwani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi leen di nuyu di ñëwaat ak yéen ngir wéyal téere bi nga xam ne mooy abqariyatul insaan fi iktishafi ma yaxtawihi al xamaraan mu jëm ci ilmul falak seen mbokkum taalibe di Mouhamadou Awa Balla def ko doon ko firi nii ci wolof ngir bëgg ñëpp mën cee jariñu ñu tolloon fii nag di ci al fusulul arbaa wa manaziluha waaw mooy fusuul yi wax nañ ko léegi ci ginnaaw waaye nag faslu bu ne dafa am ay manazil waaw dafa am ay manazil am faslu bu ne am na juróom-ñaari manazil boo ko boolee muy nekk ñaar fukk juróom-ñett kon ni mu ñëw ci alquran wal qamaru qaddarnaahu manazil moo tax manazilul qamari yaa ixwaani zakara haazul kawni fi lqurani jaat aqi thamaniyan wa ishrin fa qussimat bayna alfusuli la amin weer wi comme comme ni ko alxuraan waxee rek waaw al al al al al mana manazil yi manazil yi ñaar euh, ñaar fukk ak juróom-ñett la léegi ñu séddale ko fusu al fusulul arbaa ku ci ne am ci juróom-ñaar moo tax fa safaatan axasa kullu waahidi min al fusuli la tukun bi jaahid ku ci nekk rek ci fusuli jël nga juróom-ñaar bu ko defee nag ku ci ne juróom-ñaar yi nga jël moom laay limal fii waaw day laaj nag nga jàpp ko waaw faslu bu ne la am ci ay manazil wa adda lirabihi ahlul falaki faraxal muqaddami aqi wal tansuki bu dee rabian bokk na ci ay manasilam li ñuy wax farxul muqaddam mhm. gis nga wax nañ la ci gannaaw ne la faslu rabi mi ngi tàmbalee ci fukki fan ak juróom ci weeru février boo jamono boobee jant bi mi ngi toll ci manzilab farxul muqaddam gis nga kon farxul muqaddam ñëw na fii kon boobu mooy bi ci jiitu ay manasilam moom rabian faraxal mu aqari wa batnal xóoti wal xam wal xamalu sawri ka waaw farxal muqaddami wa batnal xuuti wa notxa wal butayna kun saa siiti bu ko defee nag bi ci topp mooy bi topp ci ay manazilam mooy farxal muqaddam batnal xuut topp ci muy ñett ak notx ak butayn kasa suraya udda min xaddabaraan tilka hiya safatu indal xusmaan bu ko defee suraya topp ci ak dabaraan yooyu nag mooy juróom-ñaar yi nga xamee ne ni moom la faslu rabi am ci ay manazil li sayfi xaqahatun wa hanaatun ziraa wa nasratun wa tarfatun doona nizaa kadalika aljabhatu summa alxarfaan zalika ma zakarahu ahlul bayaan bu dee faslu sayfi nag ay manazilam juróom-ñaari manazilam bi ci jiitu mooy xan bi ci jiitu mooy xaqaha ak bi ci topp xanha ak ziraa ak nasara ak tarfa ak jabha ak xarsaan waaw juróom-ñaar yooyu la walil xariifi sarfatun kazal awaama alsamaaki alxafru waadutha sawa kazalika zabnaanu wal iklilu wal qalbu qad tamat ayaa xalilu bu dee faslul xariifi nag ay manasilam juróom-ñaari manasilam bi ci jiitu mooy sarfa ak samaak ak xafr ak zabnaan ak iklil ak qalbu yooyu la am ci ay manazil وللشتاء شولة نعائم وهكذا البلدة وفهم عالم وصعد زابه وصعد بلع صعد الصعود وفهما بالسمع bu dee fasul shita nag ay manazilam bi ci jiitu mooy shawla naim topp ci balda topp ci saadu saabih topp ci saadu balan topp ci saadu suud topp ci wa hakaza uxayu saadul axbiya wa nafsa zakkiya aqi bi tarbiya bu ko defee saadul axbiya mooy bi ko jeexal kon shawla naim balda saadu saabe saadu balha saadu suud ak saadul axbiya waaw juróom-ñaari yooyu moom la faslu chita am ci ay manazil mooy juróom-ñaari manazil yooyu bunt boobu faslu boobu moo doon wax ci lu jëm ci manaasil yi nga xam ne dañ ko séddale alfusulul arbaa ku ci ne ak la nga am kuniyaatu fii nag kuniyaatu baadi asmail manaasil léegi man manaasil yooyu xam nga wax naa la tur waaye da ci am yenn yenn yoo xam ne dañoo dañoo dañoo am dañoo amaat ay dañoo amaat yeneen tur ma yeneen dàkkantal loolu laay wax fii yuqaalu lil butayni ishraatan kaza shartayni yaa oxayu fadlil maqasa bu dee butayni danañ koy wax ishraat danañ koy wax shartayni ba tey yuqaalu lil xursaani zabratan yuqaal raamehu lis samaaki wax fa si maxaal bu dee xursaan danañ koy wax zabra mhm. raame danañ koy wax waaw euh, bu dee bu dee euh, samaak danañ koy wax raame mhm. yuqaalu lil shawlati ibratan kama qiila li baldatin xalaadata fama bu dee shawla dañ koy wax ibra balda dañ koy wax ma xalaada ba tey qiila li batnil xuuti yaa iqi richa subhaana ma yafalu daw man ma yacha batnul xuut danañ koy wax richa ba tey kon loolu mooy dakkantali léegi nag ñu ñëw ci al buruj waaw am ay fukki burju ak ñaar fukki burju ak ñaar yoo xam ne bu fekkee yor nga téere bi da nga gis defal ko lu mel ne benn talsam benn xaatim boo xam ne da ngay gis fukki buruuj ji nekk nii ak ñaar waaw euh, juróom-benn buruuj yi nekk nii yeneen juróom-benn buruuj nekk nii manaas yi nekk ci kaw nag daal koy tiim waaw ñu séddale ko alfasulu arba da ngay gis fas fasul rabee day nekk nii fasul xarif nekk nii fasul seytaan nekk fasulu boo ko xoolee daal ci kii bi ñu rëdd noonu danga ko gis xam naa bu dee ci téere bi am na ko am na ko dugal naa ko ci téere boo xoolee da nga gis léegi nag ci buruuj yi lay wax al buruuj bayna xawsayi layli wa nahaar buruuj yi ci fi nga xam ne fele place yi nga xam ne mu ngi ci diggante ñaari xawsu yu guddi gi ak bëccëg bi dafa am lu ñu tudd xawsu layl am na ñu wax xawsu nahaar danaa ko leer ci kanam xawsu layl ci la buruuj yi nga xam ne euh, bu fa jant bi tolloo guddi gi mooy gën a gudd bu dee xaw sunu nahaar bëccëg bi mooy gën a gudd nañ ko leeral ci kanam addu yabin min al buruji tuujadu fii fi lfalaki thamini yaa man taabudu bu ko defee nag fukki buruj ak ñaar moo am ci alfalaku thamin alfalaku saamin niñ ko waxee juróom-ñetti falak yi am ba ko ba ko juróom-ñetteel ci ca buruj yi nekkee xam naa nag euh, pour xóotal ko loolu day jafe waaye mën ngaa jàpp loolu rek alfalaku thaamin daal ci la fukki buruj ak ñaar yi nekk walin nahaari yaa aqi wa xaw xawsuhuma waawan waraaxi xawli hmm. waaw bu ko defee nag guddi gi ak bëccëg bi kenn ku ci nekk am nga ay xaw yaa ngi ci sa xawsu waaw léegi bu dee bëccëg bi am na juróom benn xawsu bu dee guddi gi am na juróom benn xawsu maanaam du jaagante ñoom ñaar du jaagante ne ñoom ñaar boo leen boole seeni euh, kii dafa nekk juróom benn déedéet maanaam xawsu nahaar am na juróom benn buruuj xawsu layl am na juróom benn buruuj boo leen boolee la mu nekk fukki buruuj ak ñaar boo leen boole day nekk fukki buruuj ak ñaar moo tax xaw suufumaa yaba yaba man nga wax yaba rek bañ a wax waaw xaw suufumaa yaba ndax boo leen boole ñoom ñaar fukk ak ñaar lay doon du nekk juróom-benn xam naa damaa jum fii xaw suufumaa yaba mu def xaw suufumaa waaye bu dee ci téere bi si yaakaar naa ndax kii bi ma koy xoolee nii bokkut ak bokkut ak jëmmi téere bi nga xam ne moom laa bind waaw dama ko dama ko sotti woon ci aw kéet ci aw kayit di ko toppaat di ko xoolaat nii moo tax su ma ciy xool léeg-léegi mën naa wax loo xam ne euh, la ma bind ci téere ba moo gën a moo gën a kii ndax euh, mën na mën na mën na mën na maa yàq ci ab baat léegi ci téere ba nag ma defar ko ca waaw kon xam naa yaakaar naa ne boo xoolee téere bi dama fa bind du bokk du bokk ak lii du bokk ak waaw gi yaakaar naa maa ngi fa bind yaba yaba laa fa bind wala nahaari yaa aqi wala xaw suuxumaa yaba waaw muy fukk ak ñaar boo leen boolee su fekkee da nga koo séparé nag ku ci ne saxaw su moom day nekk waawan waaw loolu lay doon waaw lay doon te mooy juróom-benn. waaw léegi kon man li man la xawsu yi ni mu toll wal xamalu sawru kasal jawzaa wa sarataanu laa araaka daa wa hakasa al asadu xul wa sunbula dalika xawsun li nahaari mugmal li ñu tuddee alxamal ak sawru ak jawsa ak sarataan ak asad ak sunbula juróom-benn yooyu mooy xawsu bëccëg bi maanaam euh, juróom-benn buruj yooyu mooy buruj yi bëccëg bi ñu xawsu mooy fi nga xam ne fi la rek wal taadudil misana xawsa leyli wal aqrabal xawsa wa sirza jawli wal jadya wa dalwa kasal kasakal xóotu wal taabudil xayalla si yumitu bu ko defee nag bu dee xawsu yu guddi gi bi ci jiitu mooy misaan ak aqrab ak alxaws ak jaddu ak dalu mu juróom benn yooyu ak xóot waaw aqrab xawsu jaddu dalu xóot buruuj yi nga xam ne moo féete ci wàllu guddi gi léegi fii ma ci leeral mawqiul xaw say ni inda talsam maanaam booy xool booy xool ko comme xaatim bi ni ko ni nga xam ne noonu lañu ko rëddee ñaari xaw xawsu yi fi nga xam ne fi la ñu placé wu moom lay wax fii xawsu nahaari kaana fi shimaali wa fi janubi xaw xawsu li layaali léegi bu dee xaw xawsu yi nga xam ne bu dee bu dee bëccëg bi ay buruujam fañ féete waaw mi ngi ci wetu càmmoñ gi bu fekkee yaa da yor xaatim bi ni ko xool dalay lay féete sa wetu càmmoñ bu dee guddi gi nag ay buruujam fa ñu féete da féete ci wetu ndeyjoor bu fekkee yaa ngi yor xaatam bi di ko xool nii noonu la noonu la noonu la tëddee am naa kon ñu yemale foofu waxtaane incha allah ba euh, beneen baan du ñu mën a àggale ci des waaw alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani